amal alamin décision moo xoon ñu bëri ñu ma ne la dinañ daw génn commencé na de am na kuñ ko yaakaarutoon nag koo xam dana génn te bu génnee dana jéem a ut yëfu boppam waaye pour mu bëgg a gañ foog mu gis asbraam alamin kan mooy maam booy jaawo waaye dañ ma koy wan rek dañ ma dañ ma koy wan rek mais am na benn genre bayre gi muy am tuuti waaye foog mu gis asbraama mënut a ñàkk

muy démissionné. moom mooy démissionné da gis boobu moom léegi nga gis ko Lamine ré euh, maanaam remaniement buy amaan ministériel bu garaaw lamin bi yoon. di ci gis lu doy waar. changement yi bu ñëwee bi yoon di nga gis ñu bëri ñuy wadd ñooñ buñ paree ci euh, maanaam euh, remaniement bi ba ba ministère yi commencé wadd di nga ci gis ñu bëri ñuy def opposition waay waay waay waay nañ nañ bàyyi loolu. nit ku la jàppale ba nga yem fa nga yem ba toll fi nga toll xañ na la rek nga bàyyi ko si bi loolu baaxul dina gisaat ñu bëri ñu jóge ko ci pouvoir di daw ci opposition yaa ngi dégg Lamine ah kenn koo xam ne ci gouvernement la newoon muy weeru ci ay ay mbiram yoo xam ne danañ ko partager moom tuuti ci jigéen boo xam ne day si xam moom affaire relation loolu dana am oh. Lamine bi laa gis leeragul dara dafa dafa lëndëm man daal Lamine damay toog tur ñu ne ma dina am élection yi parfois ñu toog mu ne élection yi di am mais daal fii ñu toll maanaam euh, APR jël na candidat mais ba tey man damaa gis dafa lëndëm. élection gëmoo sax moo am kon. non dafa tey dañ naan ma day am soo ñaan du am parce que élection ñi ko seq ñëpp damaa gis am si ñoo xam ne maanaam position bu mu taxawee nii 6 mois ou bien mois des élections ba tey seen mbir dara see leerul ba nii may yow gisu ma leer leer si yu seere nag bu fekkee am na yu dina am ci réew bu fekkee am foog ñu woo moom nekkante situation bi waaye élection yu seere lay doon nag lamin jàppal li ma wax dañ dem ba naan diw a gagné ku ne di xëccoo kàlla kàlla boo moytu da dem deuxième tour gis naa élection yi dem deuxième tour Lamine jàppal ancien politicien fii si biir Sénégal buy gën a àddina Lamine am na ku ku ku jógee ci opposition di daw di di di di fekk ci Amadou Ba gis di nga ko gis du yàgg dara poste ministère ministériel yoo xam ne yu bari yuy saalu position politique ak ay tête yu bees tax yu amat ci semaine bi Lamine ni wax bindal ko bindal lii Lamine tay la lan tay la 10 tay la 10 xolal jàpp len le 10 bala ñi waxat 10 jours le 20 di nga gis ay position yu bëri yo xalaatoon yu Ndour gis nga génn gis nga euh, nu ñoo Aly Ngouille Ndiaye génn na di nga gisaat yeneen tête yu bees yo xam ne dinañ wane seen bopp da gis yenen luy xew ci politique ño xam ne ñu woon ñi ñii jël position ba do tej ñi ñi jël ay yenen position yu bees coup d'état buy amaat ah doy na waar coup d'état bu doy waar buy amaat jàppale Lamine 11 septembre laa waxoon Aline dañoo newoon ci mois de août ma ne Aline 11 septembre laa gisaat wal euh, euh, Lamine ana Aliou. <laughs> maa wax ma ne ko 11 septembre laa gisaat ci Afrique. mooy li xew nii le 9 la am le 11 mooy deux jours deux jours yii bu teguwaatee ci 11 bii ma wax nii. ci fin maanaam septembre beneen jiyee dana amaat ci Afrique coup deta wala ay jihadistes yuy songu ay bakkan di dee gisaat naa loolu dana xaar septembre dafa tàng jër jër jër surtout mulk maanaam 2012 na ko jëpp wir kop ku bañ musiba daal na jël na jël loolu ay lamin ay xeex xeex nit kuy songu nit ñuy xeex xeex yi doy waar force au peuple marocain am na yeneen décision yi ay yooyu jël ci dimbal gi ñu dem Mohamed Sis beneen nit koo xam ne ku ñuy rey ci États-Unis waaw dana amaat Lamine beneen nit ku ñuy rey États-Unis Lamine waaw ñettu politique boo xam ne da dem bay bokk ci élection présidentielle ñu xañ ko maanaam partie bi lu doy waar nag li may tëjee lamin mooy kilifa diine bu mag buy feebar kilifa bu mag لا إله إلا الله الله أكبر سن أسبرهم ساسوني إربني كوسيت سي ريفيلاسيون يدفعي غندي دويوار وقتان ويدفعي